jël yóbbu rëbës ci xeex bi ma doon xeex pour bañal ko projet wu jóg teg fi doomam kon loolu yàgg na kon bis bi anniversaire la ci man dama leen a waxoon ni boo dee xeex njub di xeex lu loo xam ni njariñu réew la njariñu askan la dem ci kaso yoon wu gàtt la wu jëmpale donc loolu xeex boobu ma xeexoon démb ak bërki démb moom lay wéyal si tey yéen a ngi fàttaliku itam ne ñun waa réew mi suñu taxawaay ak suñu xeex contre découpage administratif moo tax ñu rey Malick Ba ca Sangalkam kon du xeex bu ñu tàmbali tey leneen li ñuy xeex itam muy ñu respecter sartu réew mi njiitu réew mi la mu waatoon ne dana sàmmonteeg sartu réew mi mu jëfe ko loolu dama bind këyit yónnee Ablaye wàdd waaxu ba fekk ko biir palem wax ko ne ko constitution bi mayu la troisième mandat kon xeexu tey bi dajale rek diggante réew mi ak M23 ndax li ñu yëkkati ñun waa réew mi mooy aar réew mi lépp luy njariñu réew mi rek ku ca ne di sonn danga nga taseeg ñun. mais yow temps yi dégg nañ la nga ne Abdoulaye Wade yow sa jàkkaarloo ak moom beneen euh, passation de service lay doon loolu kàddu yooyu dëggal la wala. waaw kàddu yu may dëggal la xam nga li ma leen wax léegi dama ne leen woon ca màggalu Tuubaa ak daaw ga ne leen dootuma toog ak moom. ndax lépp lu ma ko waroon a wax pour bañal ko lii ko dal tey dal euh, événement wax naa ko ko ci wéetaay wax naa ko ko ci mbooloo waxtaane nañ ko ay waxtu yu dul jeex ba ma demee nag ba dab ni xolam ak i noppam dañ koo kaste mbalaan mu dëll muur ay bëtam ba déggul laa ne amatul njariñ may dialogué ak moom loolu moo tax ma ne dootuma toog ak moom wante nag comme mooy njiitu réew mi te daf koy yëkkati teg ci yeneeni loxo li ma ñaan yàlla di ci góor góorlu ak waa réew mi mooy bu senegale yi tànnee 2012 yàlla dogal ma doon ki nga xam ni maay def passation de pouvoir ak moom. mais ci kaw loolu passation boobu balaa nga cay yegg faaw nga samp sa ndënd léegi sa candidature boobu ci ay primaire PDS nga koy jëlee wala ci parti réew mi sampal la ko. déedéet xam nga parti réew mi mooy ndëgër laay euh, wante bi ñu taxawalee réew mi yéen a ngi fàttaliku ne premier ministre ba woon. dafa demoon télévision ne leen réew mi mënta nekk puisque kenn sañul tuddee sa bopp réew mi loolu moo tax ñu doon laam-laamee ndax réew mi am na këyit wala déet mais réew mi moom mu ngi fi ndax li tax ñun ñu tudd turu réew mi mooy tënk suñu bopp ci lépp lu ñuy xalaat ak lépp lu ñuy jëf mu dëppoo ak njariñu réew mi na ko yi di defee nga xam ni lu ñuy décider dañ naan it is in our vital national interest to do this maanaam ci suñu njariñu réew la ñu def nangam loolu moo tax ma tudd réew mi tudde sama mbooloo réew mi pour que lépp lu ngeen ma dégg ma wax walla lépp lu ngeen ma fekk ma koy def ngeen xam ne waaw ndaw si sax ci réew mi la léegi <laughs> ngeen xam ni daal loolu moo tax ñu tudd réew mi mais da ngeen mus di dégg may wax ni man liberal la ci famille liberal laa nekk te bi ma rombee léegi permanence su PDS bii jëm si ci place obélisque bii lu bari laa fàttaliku la ma ànd ak Ablaye Wade tabax ñu xeex ko ci démocratie man fàttewuma sama wàll voilà toxuwuma jërëjëf